asalaamaaleykum wa senegal ñu ngi ñëwaat ak yéen ci beneen waxtaan waxtaan bi nag ñu ñaan yàlla ku dugg rek na partager live bi ku ko jot tamit nga partager ko mu dem ba nit ñi jot ko ndaxte dañu bëgg waxtaan ak encore une fois sénégalais yi ñu ñaan ñu partager live bi ndax dañu jëm ci bés bo xamantene bés bu am solo la bés bu am solo ci histoire u Sénégal bés la bo xamantene fi lañuy la ñuy tàqalikook Macky Sall pour de bon ci yoon bi nak soretul ñu ngi daxante bopp ba légui li ci des bareetul Macky Sall li ko dese ci bop Sénégal bareetul sénégalais wara comprendre loolu dinañ ci ñëw léegi dinañ ci ñëw léegi ñuy ñaan ñu partager live bi ndax le 2 février bi ñu jëm mu nekk une date historique bo xamantene ci niñ ko wara taxawé moy and ak Ousmane Sonko gunga ko ci woote bobu nga xamantene tribunal wonako ci procès bi nga xamantene japp nañ ne procès caaxaan la ta procès bi nak procès caaxaan la ndax te mbolo mi gënon Kër Massar wax nañ ne buñ ko buñ ko mënee multiplier par dix nañ ko def mbooloo bi ñëwoon Kër Massar buñ ko mënee multiplier par douze nañ ko def waxuma la dix mais douze war nañ ko mën a multiplier pour ñëw ci loolu nga xamante ne mooy faux procès bi ak procès boobu nga xam ne mascarade la pour jéem a tenter yàq li nga xamante ne Ousmane Sonko élection yi ñuy wax ne waru ci bopp histoire Ousmane Sonko ak Mame Mbaye dossier mbay produk, di dossier bo xamantene dossier bu yag la dossier bo xamantene dossier la buñu wara war a tàqalikook Macky Sall ndax ci dossier bobu la la ngaamu bëgg yàq li nga xamantene moy Ousmane Sonko Mambay Nia fu nek tok na fa fu nek taxawalu na fa di saga Ousmane Sonko matin midi soir kon patrioti, patriote yi nañu xamne Fi ñu jëm yagatul li ñu muñ bari na lu ñu muñ bari na suñu digganteeg Mambay té li nak dara waralu ko lu Macky Sall bu bëgg def une troisième candidature Macky Sall troisième candidature bi mu bëgg tek motax mu taxawé li kon ñun nañu vigilant ci li nga xamantene moy le 2 février du hasard ñu mëna tek procès bi bésu proxane mais nañu wone sénégalais yi Ousmane Sonko amna mbolo mbolo mi wone nako fele nga xamantene mo don keur Kër Massar le 22 janvier mbolo mi fa ñewon lañu wara multiplier par 10 pour and ak Ousmane Sonko ku nga ko fofu nga xamantene moy tribunal Ousmane Sonko communiquer wul boobu ba léegi mais njort nañ ne dana ca dem suba xamna dina ci communiquer kon nak na patriote yëpp pare fépp fu ñu nekk ci biir Sénégal ku ci nekk boo mënee rallier dakaar na ko def dans la journée parce que guddi gi dañuy tere oto yi daw parce que mbooloo mi foog mu ñëw bu ñu taxawee de Colobane jaar Médina foo jaar bala ngay yegg tribunal dafa war a fees dell dell dell dell dell ak nit na Dakar waayi génn na 19 communes Dakar yëpp génn ànd ak ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko la jeunesse li nga xamante ne mooy seen avenir moo nekk en jeu mënul nekk ci réew mi di luubal alalu réew mi ànd ak ay comploteurs yoo xamante ne liggéeyal Sénégal taxu leen jóg lu dul naan deretu sénégalais yi la ñu nekkee boobu ba léegi. léegi nag loolu ñu nekkee boobu ba léegi dañ cee bëgg a rax li nga xamante ne mbirum caaxaan la mbirum caaxaan boobu mooy fexe nu ñu taxalee Ousmane Sonko ba ne ko yow dootoo bokk ci ay élection est-ce que ñun Sénégal dañuy d'accord loolu wala dañu koy nangu wala dañuy seetaan Ousmane Sonko Macky Sall def ko loo nga xamante ne mooy jëf ji mu defoon Karim Wade def ko Khalifa Sall est que loolu war nañ ko seetaan kon nag situation bi comprendre nañ ko bu baax a baax a baax a baax waru ñu waruñu dara mbooloo rek moo leen mën a delloo ginnaaw te mbooloo moomu am nañu ko nu ngeen gisee région yépp taxaw nañu Foutinek ci y conférence de presse amna manifestation, y compris la diaspora taxaw nañu pour défendre le candidat Ousmane Sonko pour élection 2024 yi ñu yóbbu ko ci palais bi Macky Sall waru ñuko may Ben Ben Ben Ben avantage muy jema fexé nu mu Ousmane Sonko du bok ci élection parce que bu poussé mu yomb dafay jall. kon nañ ko won résistance bi nga xamante constitution bi moo may Macky Sall donte moy jité Sénégal ak ni mu andal. nañ leen considérer comme ay ennemi ndaxte dañu bëgg la lo loo ci constitution Sénégal mom moko autoriser autorisé muy nga am droit bok ci ay élection nga am droit def li nga xamante ni moy résistance kon résistance Bobu, nañ ci bàyyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax a nak ci bës bobu lañu toll ni le 2 février fep fo xamante sénégalais nek nga fa nek épris de justice donne patriote Warlord tok di xaar ñuy nërmeel Ousmane Sonko ci ay mbirum caaxaan ndax lepp lu ci preuve téye nañu ko ñom waye ñun fiñ ñu toll dem sax ci ay démonstration technique lu jëm ci walum procès bi parce que xam nañ ne li muy tenté Macky Sall justice am mooy fexe nu mu nërmalee ki nga xamante moy Ousmane Sonko donc ñun ci loolu la wara taxaw focus ci loolu bañ Macky Sall nërmel ko naka lañ koy defee na mbooloo mi génn na sénégalais yi génn ànd ak Ousmane Sonko lii rek mooy wax ji ñu bari ñu ngi naan bu mu dem bu mu dem bu mu dem mais ñoom loolu la ñu yàkkamti bu ngeen gisee tey RTS ak TFM wane tribunal bi mooy piège bi ci nekk dañu bëgg intimider sénégalais yi pour fexe Ousmane Sonko bañ a dem su Ousmane sonkoo demul ñu condamné ko door ko sursis bàyyi ko këram jéem a invalider jéem a fexe nu mu dul bokkee ci élection donc lii war a nekk lu important loo xamante ne moom la sénégalais yi weer xam projet bu euh, procès bu dangereux la moom lañ ñu tegal nii jàpp nañ ne ñëpp xam nañ ne procès caaxaan la mais procès boobu li leen di delloo ginnaaw mooy xeex résistance boobu ñu defoon mois de mars nañu taxawaat exactement la même chose pour faire reculer Macky Sall suñu frère Jim Ndiaye wax Macky Sall Ousmane Sonko bu alors que mom le sénégalais Tago, mom mo ci élection onze mois moko fi déssé kon nak liñu muñ ba légui ak liñu xaar ba dafa jot nak tay ñu taxaw taxawal li nga xamant gat sa gat sa bobu ndax waruñu Macky continuer di sénégalais ñu waruñu bàyyi kii di Macky Sall continuer toog Sénégal di leen not ñu koy seetaan li ñu ko war a jox mu xam ko comprendre ko ak ñi mu àndal ak képp koo xamante ne yaa ngi biir Sénégal toog xam ne Macky Sall nekkul ci dëgg nekkul ci yoon nga koy seetaan li war sénégalais yi mooy lii di seen alal ñu sàmmal ko seen bopp naka la ñu koy jàppale nañu taxaw def comme ni nga xamante ne notre frère Abdou Karim Gueye génn na wax wax joo xamante ne donné jox benn leçon jox ben leçon patriote leçon bo xamantene cour magistral la joxe moy taxaw jakarlo ki nga xamantene moy Macky Sall neena waratu ñu wax sax naan boko laalé dañ ko war Macky Sall boko ko ñu dal sa kaw Ousmane Sonko du nit ko ordinaire ta nañu xam sagante bi nga xamantene wax nañ ko suñu mam yi jaaroon nañ fi ak nañu na sa xeleyoon ñom Cheikh Anta Diop Ousmane Sonko dafa nekk ci benen tournant fi mu tollu aduna bi mo laaj Nous avons un dirigeant, yu Ousmane Sonko pour mener le Sénégal ci guuta gi mu qui est nag loolu nous ku ci nous part de responsabilité ndaxte xeexal sa réew bëgg sa réew dafa bokk ci jaamu de ki nga bi un la part de responsabilité li nga donc kenn ku ci na nga jël responsabilité? def parce que vous la nous est-ce que mën nañu concevoir mati sàll tëdd ci alalu senegal tëdd ci alalu senegal di ci def naka sa dul noonu di jël alalu senegal di ko caaxaane caaxaane alalu senegal tolluwul nga jël ko jox ko ay nit ñoo xamante ne dañuy wër di corrompre ay nit di leen saagaloo te amuñu kenn ku ñu jublu ku dul Ousmane Sonko koo xamante ne sonn na tàyyi na def na lu ne daj na lu ne bi mu juddoo ba léegi Sénégal àq la ko amal est-ce que dañuy seetaan ni Macky Sall def ki nga xamante ne mooy imam Alioune Badara ndaw faagaagal ko est-ce que loolu la ñuy xaar ci ki nga xamante ne mooy Macky Sall mu def ko Ousmane Sonko est-ce que jotul ñun ñi nga xamante ne mooy des épris de justice des sénégalais des dignes fils d'Afrique taxaw jàkkaarloog Macky Sall raxasoog moom parce que Macky Sall buñ ko teggee ci au Sénégal ca la Sénégal di commencer respirer di aspirer au développement tey dem na ñu afficher ko fépp muy wax naan Sénégal mu ngi ci développement Sénégal mu ngi nekk ci dix meilleurs yi nga xamante en Afrique deuxième en Afrique de l'Ouest mais lolu foutaise la xam nga lu waral lolu force Covid baa ni Cour des comptes baa ni limu li ci wàllum Covid bi 1000 milliards ñu jox leen ko ñu sàcc ko ana bonne gouvernance ci lolu terre bi dégg ngeen luñ ci wax barki Dembo ndjay du lo xamantene ne Sénégal moo ko ana bonne gouvernance ak yenen ak yenen ak yenen donc lolu mom mo ñu wara permettre ñun ñu tàqali ko ak Macky Sall parce que nak buñu ko seetaanee il va vers l'offensive te lolu nak dañ ko wara bloquer nak lañ koy bloquer c'est tellement simple et c'est facile moy fexé li nga xamantene moy le deux fep fu sénégalais nek fépp fu sénégalais nekk na nga teew foofu nga xamante ne mooy Dakar ànd ak Ousmane Sonko na doon une marée humaine une marée humaine boo xamante ne bu ko gisee juge yi dinañu dellu ginnaaw ci li ñu nekk. juge yi xam naa ne demain dès demain soir ñoom ñëpp dinañ leen yóbbu foofu nga xamante ne mooy tribunal ñu fanaan fa pour fexe Ousmane Sonko condamné ko. li leen di delloo ginnaaw mooy mbooloo mu takk génn ñu bañ condamnation boobu. xex ak ñom bu jaré le 2 muy le départ de Macky Sall à partir du 2 février ñu xamné mom moko moo provoqué voilà la situation li moy affaire bi Macky Sall bu ñu ko sétané mu def limu bëgg def Ousmane Sonko kon ñun ñëpp on sera des on sera des complices mën nañu ko xex ba génn ci li nga xamanteni ne nii lim ñu bëgg a match bi jeex na ba paré fin bi lañu nek le 2 février fu li lay war fu sénégalais nek na nga jël ñi mëna a fanaan Dakar nañu teel juk suba dox ci ñi mëna dox dox ñi mëna a jël auto dox ñëw ñëw ñëw téw ci li nga xamante moy à partir du 2 ñu ñew fess Dakar fess fa del Dakar waaye génn waxna ko les 19 communes ñep génn fu patriote nek ñu génn cellule yëpp ñu génn and ak Ousmane Sonko parce que nak suba. mooy bés bi nga xamante ne foofu la sénégalais yi war a amee une bonne fois pour toutes respect ci ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko. parce que Macky Sall noonu la taxawee bëgg na ko discréditer ba pare faagaagal ko sénégalais yi est-ce que dañuy toog di seetaan naankat kat Mamadou Dia daloon na ko Cheikh ante Diop daloon na ko Omar Blondin Diop daloon na ko Ousmane Sonko est-ce que dañuy seetaan mu dal ko. Macky Sall nag yorul doole bi du les forces de défense et de sécurité. du ñoom ñoo doole bi doole bi c'est le peuple wane nañ ko au mois de mars il faut exactement la même chose voire plus pour mën a ki nga xamante ne Macky Sall ci mi donc le 2 février bu ben sénégalais des ginnaaw bu ben sénégalais des ginnaaw rawatina ñi nga xamante ñoo dëkk Dakar li laay war a taxaw leen ngeen continuer xex xex li Ousmane Sonko ñom li ñuy waajal ben jurisprudence la ñu bëgg taxawé loolu la ñu bëgg donc nag na gars yi xam bu baax a baax a baax comment fair pour lutter ki ak Macky Sall problème la ñu am ci Sénégal bi fi Macky la nekkee boobu ba léegi deux ans deux mandats lañ ko mayoon mandat bu mujj gi mu ngi ci càppaandaw bi mais bëggul bàyyi li nga xamante ne mooy réew mi muy problème ci sénégalais yëpp rawatina ki nga xamante ne mooy euh, kooku di ministre des sports di yata di euh, Yankhoba Diattara ba Diattara di koo xamante ne peste la boo xamante ne amul lu mu dul yàq Ousmane Sonko tey jii bu ngeen gisee mbër yi génn di wax ci affaire bi parce que moom mooy ministre de sports moom moo jaar si suuf di def le sale boulot boobu di wax ak no ay ñoom Zarko ay ñoom Sitak yu demee noonu. pour jéem a fexe toog loo ndaw yi wala jël ay mbër dugal leen ci biir pour ñoom ñuy jéem a jàkkaarloog askan wi ñoom nañu xam ne minorité leen ci réew mi te ñoom. coono biñu nekké Macky Sall mo len ko tek et son régime le ministre des sports di un vrai vrai vrai vrai vrai bandi di Yankoba Diattara mom mo nek ci ginnaawu mbeur yi yep pour djema fexé fexe nu mu bolé ak askan wi donc loolu na ci gaay yi xel bu c'est un ministre qu'on oublie mais Macky Sall tegu ko fi pour pour pour pour compétence daf ko fi tek pour mu djema infiltrer mouvement newetani association yi yoy yep pour jéem fexé numu naxé jeunesse bi ñu baña jakarlo Macky Sall xex ak mom alors que il est temps ñu jakarlo ak ki nga xamantene moy Macky Sall xex ak mom le 2 février c'est un procès bo xamantene procès tiaxan la mais bu ñu procès bobu lu bari mën nañ ci fekk lu bari mën nañ ci fekk té lolu mën nañu ko génné xex ak Macky Sall numu gëna gaawé a ak mom mbolo rek moko mëna dello ginnaw té mbolo momu ñun la ñoo ci wara taxaw. ànd ci fulla ak fayda war ne ko Ousmane Sonko mii du boo ko laalee mais boo ko xoolee benn xool bi sax gaa yi war nañ mën a dal sa kaw foofu la Sénégal war a toll gat sa gat sa boobu dañ ko war a dëggal lu ko mooy bu ngeen fi déggee koo xamante ne mu ngi leen di fexe di leen moraliser toog leen jaru ko fekk ne moom la mu toog moo tax mu noppi ci réew mi parce que tey réew mi ku ko xool xam ne dara doxul ci réew mi dara dara dara doxul ci réew mi donc ne dit partager surtout le 2 février pour ben sénégalais des bu ngi sénégalais des na a Ousmane Sonko il le mérite te loolu ñuy def suñu bopp lañ koy defal kenn suñu bopp Ils résistance dafa beaucoup ci constitution au Sénégal te Macky Sall li mu jaay doole la na faux procès Ousmane Sonko rendi mais les ndaw yi ñoo moom li nga xamante ne mooy xeex bi donc foog ñu défendre ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko foofu laay daanalee live bi di ziar képp koo xamante ne rek yaa ngi woon ci live bi di leen jox dig daje beneen yoon incha allah demee dinañu ñëwaat gën a renforcer li nga xamante ne nii mooy message bi gars yi mën ko partager ñu xam ne le 2 février jour la boo xamante ne à ne pas manquer ci mobilisation une marée humaine la soxla Dakar ñu ànd ak Ousmane Sonko demain inshallah, on aura l'occasion de l'écouter parler ñu xool ban orientation la day dem ak bu dem lu ci mën a am rek na gars yi pare bu fekkee day dem ñu gunge ko bu demulee gars yi taxaw xeex ak affaire bi jeex kon foofu laay daanalee di leen jox dig daje ma leen yoon jaa